gis ñu ci am mooy ñun jàpp nañ ne ni ñu ko jaarale warul demee noonu parce que loi d'amnistie lañ wax on amnistie les faits faits yi ñu wax ne dañuy commencé 2021 ba jëm 2024 bi nga xamante ne si si lañ nekk mais dans tout chose dafa am loo xam ne moom moo jiitu moom mooy dëgg balaa ñu ne dañuy baal nit ak dañuy baal kii dañuy effacer li nga xamante ne si dafa xew dafa jaadu nit ñi xam lan mooy dëgg bi parce que lii dama jàpp ne c'est un précédent dangereux boo xamante ne si moom moo am ci réew mi parce que day permettre président bu fi mënti toog ëllëg bu ñëwee mu def li nga xamante ne si mooy li xew euh, ñu bafouer droit des personnes bafouer dignité des personnes di torturer nit ñi di def ay saccage maanaam impunité la doon loo xamante ne si moom la ñuy promouvoir moo tax ñun ñu jàpp ne euh, bokk ci parti bu ñu naan parti de l'unité et du rassemblement du PUR nekk ay député fii ci assemblée nationale ñu jàpp ne loi bii nii kat ñun duñu ko voté duñu ko voté parce que dafa am loo xam ne respect la envers ñi nga xam ne dañ ci yàqule respect la envers ñi nga xamante ne si dañ ci ñàkk seen bakkan notamment ci seen famille parce que ñoom ay victime lañ ci li nga xamante ne si moom moo xew ñi ngi wax ne dañuy indemniser indemnisation mën nañ ko def ci ku ñàkk matériel am mën nañ ko def ci ki nga xamante ne si dañu saccagé li am mais ki ñàkk bakkanam kooku loo koy indemniser lenn rek la soxla te mooy ñu wax dëgg bi fan la féete te mooy kan moo rey kan moo fexe ba doomam ñàkk bakkanam wala yaayam ñàkk bakkanam wala papaam ñàkk bakkanam moo tax ñun ñu rejeté ko carrément wax ne duñu ko voté waxuñ ne duñ ko voté pour le simple plaisir que duñu ko voté duñu ko voté parce que dafa am ay argument mooy li ma leen expliqué sànq loolu lañ teg sur la table tey jii nii bu doon ne wax nañ ne dañuy def au nom de cette réconciliation nationale wala dañuy def au de cette paix mooy jàmm ji nga xam ne moom la ñu wax loolu la woote mais nañu fexe ba am loo xam ne loolu lañ jiital te mooy ki tooñ ñu ne la yaa tooñ bu ëllëgee day tax keneen dootul am sañ-sañu tooñ mais si on laisse faire c'est parce que ñu nga xamante ne si moom mooy impunité ñun nag ñu jàpp ne président Macky Sall ñi nga xamante ne si ñoom la àndal waroon nañu am beneen taxawaay ci ñi nga xam ne ñoom ñooy peuple sénégalais parce que bu ñu seetloo ñoom ñoo doon wax ne ay terroristes dañ fee nekk ñoo doon jàpp nit ñi di tëj ñoo doon wax ni nit ñi euh, dem nañ sax ba tuddee fi ñenn ay force occultes mais est ce que loolu dañuy xëy xëy tey rek ne dafa jeex non non ça doit pas se comme ça li war mooy ñu leeral li nga xamante ne si moom mooy dëgg bi pour que kenn ku nekk jël ay responsabilités dans l' avenir kenn dootul amati fit wax ne man kat dinaa doxalee nii rien que pour la mémoire de ces martyrs rien que pour la mémoire de ces victimes qui son mortes dans des conditions euh, extrêmement graves je pense que benn député ici présent warul mën na day voter li nga xamante ne si moom mooy projet de loi d' bi